doon doon comprendre wul woon tout à l'heure mooy euh, pourquoi instant bi cette sortie aussi virulente contre Ousmane Sonko mais expliquez nga ne que euh, les raisons parce que on parle aujourd'hui d'apaisement pourquoi pourquoi vous parlez de virulence lan moo virulent ci li ma wax les propos comment vous les avez jugés vous non propos mais attends mais moi je pense madame que vous êtes très bien placée pour ana yéen amu leen droit euh, sax joxe seen opinion <laughs> yéen vous parlez de fait fait mooy wax li am yam ci amul ay Ousmane Sonko lii la fi def ak lii la fi defoon ak yu mel noonu. ci lan laa attaqué wax ma lan mooy attaque yéen ñëpp maa ngi leen di laaj ñu toog lan lan laa wax mu doon attaque mu yow. c'est-à-dire fekk si ko ci ci xëy na moom moom li ngeen koy ŋàññee saa su ne fekk ko ci lan ci li ngeen koy ŋàññee yéen déjà saa su ne mooy Ousmane Sonko day day day alerté wala day génn di wax naka su dul noonu man bëgguma bëgguma voilà waaw bëgguma mhm. ñuy wax di laam-laamee man du ma wax de mhm. façon parabolique damay wax de façon mhm. affine mhm. cest diir lan laa wax dama ko fekk ci lan moom am na lu ko dal loo xam ni bu ñu seetee ba seet wax rek dëgg yàlla yëfi boppam la ak kam concerné. par exemple ba nga ne man yow danga am gëm-gëm que ne. Ah. lañ koy lañ koy tuumaal moo ko def. waaw waaw loolu. waaw yaa ko wax. waaw kay mais fi ma ko teg kay wax naa ko. Mm. man nee naa xam naa Ousmane Sonko juróomi at a ngi nii. waxagoo ko fii boobu. fan nga ko Macky Sall yónni woon IGE fa nga déggee wax ji ba di ma ko laaj wala ñu woo FBI ak ban sëy dama ni juróom-ñaari at xaw ma juróomi at Ousmane Sonko bi ma koy njëkk a gis ci seen plateau télé la mais boobu yéen a ngi fële. mu ñëw man moom yaa xam mbay ñu bokk débat ñu pare mu ni ma grand est-ce que mën naa am sa numéro ma ne ko dégg naa ci ci ibaadu yi nga bokk sama mbokk nga dem sama yoon ca laa ko mujj a gisee ma ni li nga laaj mooy mooy lan si. fan nga boobu ba ma xamee jour boobu Ousmane Sonko. Mhm. ba tey jii nii du suivre politique nekk acteur politique mosuma ko dégg mu wax lu am. c'est-à-dire wax na fi wax yi pétrole ñu dem ba ci biir man ma xam ne du dëgg ñu ñenn xam ne du dëgg am na ñeneen ñu jàpp ne que dëgg la ba léegi fii am na ñu toog ba léegi gëmuñu sax korona am na ci réew mi. ñu wax fii waxi 94 milliards ñu dem ba ci biir gis ni du dëgg man sama bopp ñu xëy bind ni que sama papa ñoom la pare ne man ma xam ni sama bopp ni du dëgg Adji Sarr mosuma kaa dégg waxul dëgg Adji benn yoon laa ko mos a dégg lii la ma sa wax kii mën naa lim fukki wax yoo xam ne benn tegaw ci dëgg donc accusation de jàpp nga ne dëgg la li ñu jiiñ Ousmane Sonko viol bi yow vous confirmez que c'est vrai monsieur le ministre du man maay confirmer fii li ngay wax problème opinion la ak conviction ku nekk sa opinion c'est-à-dire faut pas bul jaxasee wax ji man sama opinion laa wax damaa dégg Adji Sarr sama conviction intime conviction damaa déglu Ousmane Sonko déglu aji Sarr ci même problème bi Ousmane Sonko moom nee na dafa feebar ba mu nekkee xale ba léegi dafa feebar mm-hmm. yaayam sax da ko daan utal graisse su yeew mu toog yi am lu muy yëg ci yaramam am urgence médicale moo boobu la utiliser moom urgence médicale am ca ñoom Adji Sarr la koy fajee man dama gisagul urgence médicale bu ñuy fajee ci biir jacuzzi. kon que répondez-vous à loolu laa wax monsieur le ministre que répondez-vous à Ousmane Sonko qui ne que uh-huh. euh, euh, dafa yàkkamti sax ñu euh, tegal procès bi parce que le dossier est vide et suñ koy teg tamit buñ ko teg temps aux campagnes. non c'est que c'est que il faut que mu xam moom mooy kan. c'est que moom moomuñu ñu moom dafa am programme am di wax justice am programme am di wax am temps du moom mooy wax nan lañ koy atte parce que représenté wul ak ku mënti doon du moom mooy wax nan lañ koy atte du moom mooy wax ndax contenu bi baax na wala baaxul parce que moom mën naa wax lu dul dëgg te ci la dëkk mais mën nga aussi que dafa yàqamti euh, procès am monsieur le ministre vous accuse quand même uh-huh. que vous faites partie du complot yow même complot lan ngay tontu ci loolu. com mais il parle de complot. waaw mais ana complot Ousmane Sonko ak ñi mu àndal nee nañu mbir mi complot la et yow mii tudd nañ la que ne vous faites partie ngay tontu. ci loolu waaw mais mani. si vous confirmez ça sans avoir des preuves. non man duma ko man ci loolu nga bëgg a ñëw après boo ma ci laajee rek ma tontu la man lépp lu ma wax am naa ci preuve mani complot déjà dama ni amul. complot amul pour ñaari yëf moo fa yóbbu boppam mosoo dégg Ousmane Sonko ni la xaw ma Adji Sarr musoo dégg son ko ni la liñ may jiiñ amul musoo ko dégg mu ni la demuma fa moom nee na dafay faju foofu kenn du fa faju soxna si wala ak sénégalais yu ñuy seetaan bu ngeen gisee bu ngeen xamee feebar boo xam ni dugg ci si summeeku ba set ñu defal la fleur defal la parfum taalal la ay sondeel loolu moo koy faj mais kon loolu beneen feebar la yan preuve nga am yan preuve nga am mais aw ma preuve Adji Sarr moo ko wax Adji Sarr bi ci nga bokk mais déedéet man déedéet nekkoo li ma la wax mhm. nan complot bi nan laa ci mën a bokkee nan laa mën a bokkee ci complot man xaw ma Adji Sarr xaw ma Ousmane Sonko usmaan Sonko ba muy dem tàgguwuma capuchon la sol dugg otoom taal yóbbu boppam ba egg ca bunt ba wàcc fëgg dugg ñu ubbil ko Ousmane Sonko nee na dañu complot alors pourtant xam nga xam nga dama waxoon ni que dootuma am na débat yoo xam ne dootuma ci duggati. Mhm. parce que dama jàpp ni que yéen ay journalistes ngeen. fii dund nañ fi ñaari mbir man battre nañ fi campagne référendum jox leen liste 19 points xaw ma 17 point ngeen di liir lire liste 17 points yi boo liiree ba mu jeex. doo ci gis fenn fu ñu wax dañuy légaliser homosexuel nga dëpp feuille bi daan ni mu waa dégg naa da ngeen ni légaliser homosexuel homosexualité cest à loolu ci réew mi la amoon mooy ñuy battre campagne oui ou non jox leen 17 points yow nga doon journaliste mën a lire dégg tubaab macha allah xam liñ ci bind. ñenn ñi doon ay juriste mais da ngeen ni lire ba pare teg daan waa mbedd mi nag nee nañ dañ am naa sa sortie bi nga defee sa sortie Karim Karim Xurum Xaax dafa dafa génn également euh, def def sortie euh, temps bi rek parce que li ñu war a wax dafa bëri moi ça une dernière euh, question soit sur ce point emploi waaw ñu yeggale foofu parce que c'est important aussi Karim Xurum Xaax dafa wax ne da def sorti et que bi nga defee sortie ba pare mu ne yow ci sa bopp doon nga wër pour gisee ak Ousmane Sonko bi nga xam dem nañ ci manifestation dem nga sax ba jàpp na ne régime de Macky Sall jeexal na et que il faut nga dem gis Ousmane Sonko lan ngay répondre ci loolu. boobu rek sax am na beneen. bu ni dama jël taxi dem Kër Massar am na beneen bu defar tamit ni man ak sama jabar ñoo àndoon ci benn oto bo xam nga la tontu ana caméra bi may filmer Ousmane. kenn du yónni ay bëy ñuy rëbbi gaynde dégg nga yaa may seetaan. kenn du yónni ay bëy ñuy rëbbi gaynde moom la ñu wax nee na complot la nee naa du complot tey la wax weeru koor lañ nekk xëy na moo tax wax dëgg yàlla am na kàddu yoo xam ne parce que dañ ma ko reproché kàddu yoo xam ne bëgguma koo génne mais li am ba am ñu tënk wax ji li amoon du amaat benn bu dee li nga yaakaar la yow amul man xëy na sax tey euh, <laughs> nekk ci leneen mu mu gënal parce que lépp lu dama nekk ndaw président dugal ma ci gouvernement juróom benni at génne ma ci gouvernement dugal ma ci cabinet ñaari at ni ñi téem réew ump ma umpu ma c'est-à-dire mënoo def juróom benni at ci gouver juróomi at ci gouvernement def ñaari at ci wetu président di ko gis muy téye am réew man tollatuma fu may joxe président Macky Sall gage naan ko wóolu nga maak wóolu woo ma wax dëgg yàlla golo loo ko bañ bañ bañ danga koy nangul ni nag ah mën naa yéeg garab ah cest dimbali leen ma ba bu leen tax ñenn ñi di ñàkkal fayda di wax parce que man duma leen ko def man li ma leen di wax yàqin la ngëm-ngëm la nekkuma ci ay fo nekkuma ci ay tappale nekkuma ci ay leneen li am ca ma mën koo wax procès bi dina am incha allahu rabbi dina wuyu ji coow du jib géej du déborder kaas du toj am nañu jàpp ne yow également dans l'affaire Prodac war nga mën a dem ñu leexal mbir yi na serait-ce que sax pour le président de la république mën nekk à l'aise gis nga dans cette affaire ban réaction nga ci am par rapport ak affaire Prodac amul dossier judiciaire est-ce que waruñu yegg ci ouvrir peut-être une enquête par rapport à cela pour éclairer les sénégalais mais madame mënoo wax comme sénégalais yi ci mbedd bi parce que yow jàng nga vous avez fait l'école vous comprenez l'administration Prodac tey buñ ñu détourné woon en réalité xaalis ba fa nekk yëpp sàcc la fa nekk yëpp man duñ ma woo xam nga lu tax du ma administrateur nommé wuñ ma fa du ma ordonnateur dépensé wu ma on ne peut pas tey bu Macky président Macky Sall yónni woon IGE Cour des comptes wala ñu woo FBI ak ban CIA ñuy dem di enquête duñ ma woo parce que sama yoon nekku ci nan lañ may woowe rapport boo xam ne boobu ba seen TV man ak ñoom dem nañ ci procès du caat fii la toog caat après ay xarit laa fi am ñu bàyyi kenn musul gis rapport bu wax kenn mosul gis kayit bu wax lañ doon wax réer na am na ku toog daan ni feeñ na ci laay liggéey mais nag man du ma ci sonn xam nga lu tax ma ci sonn nu ala kulli aal dina am ñu gëm ak ñu dul gëm sëgam yàlla bi ñu sàkk la am ñu gëm ak ñu gëmul mais seen antenne bi chaque jour ngeen jox ko kenn mun leen ñii corona lañ kii corona amul te mi ngi rey. d'accord alors dañuy.